spécial safar ñun ak yéen ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bés bi njëkk ci weeru safar ba bu keroogee di safar fële ci Touba. yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Promedia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu ci bis màggal ci njëkk yomb njëkk lu ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir bi di Bi Pro Média kon màggul 2022 ak Bi Pro Média ñun ak yéen incha allah. mbokk yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax yéen ñuy suivre à travers Bpromedia nee naa leen nag euh, Bpromedia moo leen di leeralal lépp lépp li nga xam ne moo lëndëmoon ci bopp góor ñi tey nag ñu ngi fi Grand Yoff ku ne Grand Yoff ne canal Grand Yoff ñu ñëwoon xool si kër yi nga xam ne dafa indoonde euh, nan nan la nan la demee ak ñëfa dëkk nan la ñuy jànkonteel jamono ji bu tawee duudu topp ma rek ñu dem xoole li nga xam ne muy kër yi nga xam dafa indoonde asalaamaaleykum Seck nuyu nañu. ça va ñu ngi lay fay soxna si. Euh, en tant que doomu Grand Yoff tey nan nga dundee li nga xam ne mooy jafe-jafe bi à chaque fois lii la ñuy jànkonteel si li nga xam ne saa yu tawee rek euh, fit yi dootuñu toog xel yi dootuñu dal ñuy xuus ñii di dund ay jafe-jafe yu waaw ah gis nga ko de ñoo ko gis ndoo lii moom ci lañ juddu si lañ màgg ba toll ñu toll nii chaque jour rek day répété lii am mooy am rek mais xëy na yàlla dina mu def bés jot ñu jëlee ko fi daal mais bu dul ñun peut être suñuy doom wala suñuy jabaat ëllëg amaana balaa ñuy màgg na fekk lii deñ parce que daal affaire bi jaaxal nañu trop dem na sax ba léegi dañ doon wax Grand Yoff mais boo xoolee partout le Dakar léegi ah affaire bi léegi dafa gën a pur partout le Dakar mais état bi rek moo ci war a farlu bu baax xool parce que mënuma nangu Dakar yaatuwul foo tourné gis nga géej boo awee nii dem nga géeju parcelle géej yu raax nga dem Ngor Wakaam géej yaa ngi ñu wër quoi mais pourquoi mu ñuy def ay caniveau yoo xamante ni day évacuer ndox bi automatiquement mais léegi dara liggéey bi daal pour man daal état war na xool bu baax ni muy liggéey quartier yi balaa ñuy lotissé ñu defar ay as canal yu baax defar ay égo yu baax ba nga xamante ni bu ndox taawee rek day dem mais sonn nañ trop si ndox yi la ñuy xuus añ si ndox yi la ñuy xuus reer si ndox yi la ñuy xuus ndekki màggaale ko dem na sax ba suñu yaram bi léegi maîtriser na lu ñuy wax arbis. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. nuyu nañu la ñu ngi lay delloo. Euh, en tant que dëkkandoo si biir Grand euh, ñoo ngi fii si kanalu Grand Yoff nan nga dundee tey li nga xam ne mooy ndox xanaa perte d'office nag parce que nag nee nañ lu am yàlla la mais yàlla nag lu muy def temps moo ko tey comme que borom kër yi léegi ñoom lu ñu def ñoo ko tey ànd ak yàlla tamit sa tayeef. ndax mi ngi nii suñu biir néeg yëpp yëpp yëpp ndox la suñu bagage yëpp yàqu na te dañuy fay lu yaas teg si waaw instant bi ah, jamonoy politique dañuy gis maire jamonoy politique dañuy gis maire gis koo xamante ne day xëccoo ay assemblée mais tey gisuñu kenn kon léegi affaire yi nekkatul ay dóor ñun dañoo yeewu comme ñoom dañoo yeewu comme ñoom mais nañ ñu dimbali sunu grand chef bi bu juddoo ba léegi moom la ñuy gis Abdoulaye kan mooy suñu homme de confiance du xalifa te ñun ay xalifis lañ du xalifa Sall te ñun moom la ñu bëgg moom xalifa boobu moom la ñu bëgg mais instant bi mi ngi ñuy jaaxal daal moom gëj nañ ko gis namoon nañ ko. ban message nga am pour lancer ko. ban message la am pour lancer ko mooy c'est le monde en l'envers amatuma message quoi damaa découragé ko ko découragé déggoo yàlla si def ñoo jéppi moo tax mu ñu tawal ba léegi. waaw yàlla baax na teg ko sa baay dee moo ko rey kon yàlla baax na. salaamaaleykum. maaleykum salaam. nan nga gisee tey li nga xam ne moo am fii Grand Yoff rawatina di kanaaru Grand Yoff. waaw jaaxle rek jaaxle parce que depuis bu ma fi juddoo ba léegi ba màgg fi ba tey nekk fi dara ràññu ràññee ma ci biir Grand ba léegi même chose même scénario même dund nga gis chaque fois kenn yàqamtiwul ndox tokk ci ci suñu gox bi. te dañ naan ndox wërsëg la mais ñun wërsëg bi nga xam ne dafa ànd ak fitna la lu muy lor ci ay kër moo bëri am na kër yoo xam te ne bu ndox commencé tuur rek seen nalaw jeex na waxati rawatina man mii sax pratiquement ndox dugul suñu kër mais saa bu ndox turo da ngay sonn parce que sa oto da nga koy déplacer à ne pas finir démb déplacé naa ko trois fois donc nga war a xam te ne que nawetu Grand Yoff ñëpp koy dundandoo donc euh, lenn daal laa xam te ne ñun comme ni ko sama grand tout waxee moom mooy Grand Yoff ñun dañuy dund ci cauchemar bi nga am te ne c'est éternel bu politique jotee man je suis un acteur politique je suis je ne suis pas un politique mais un homme politique c'est-à-dire kii euh, kuy dox ci fulaak fayda ak dox luy jëmalee gox bi kanam mais am na ñeen ñam ils ne que du théâtre bu campagne jotee ñu ñëw sama mbokk politiciens yi def seen euh, scénario de théâtre bu jeexee dootoo fi gis kenn moment yi yëpp mi ngi taw taw yi bu muy metti ñun ñu ngi nekk ci àll bi di campagne ñun ñu nga am ñoo doon doomu gox bi mais après suñu xel dalul woon parce que papa ak yaay ak rakk yeeg doom yi ñu ngi leen fi wàcc dañ doon woote woote woote wat te bu ñu ñëw mujj bàyyi suñu lépp ñëw bu ñu ñëwee da nga doon gis suñu ñeneen ñi nga am naan député la ñu doon wala maire la ñu bëgg doon dañuy ñëw taxaw di dig lu jeex léegi nag Grand man yéen laay waxal yéen a war a yeewu bu ñu gisee ñi nga xam ne seen morom yi ñi ngi yoof bu ñu leen fëggoon léegi damoon yoof ne diw ak diw ndax xam ngeen ne néew yu tëdd yoof jug ne xam nañ leen ñoo foowandoo tey ngeen gis na tey seen ay doom ak seen ay sët ñoo màgg ñëw tey gis li nga xamante ne jud dund nañ ko bu ñu juddoo gis ko tey gisaat ko tey démb ak tey kon tey ñun ñun boobalee ñu dañuy soxla léegi ngeen jox ñu ñun suñu chance ñun ndaw ñi wala ñu ko joxee lu ñu gis démb suñu maam yi di ko doon dund moom duñ ko nangu dundaat parce que kenn bëggul nekk mbër ba pare ëllëg ci biir nga bugg sa doom ñëw nekk mbër amul fenn kon ñun Grand Yoff ñun dessin ñun ñoo ko mën a téye. waaleykum maa ngi sant yàlla. sànq doomu Grand Yoff tey nan nga dundee li nga xam ne mooy jafe-jafe taw bi. waaw comme ni ñu ko gisandoo rek Grand Yoff moom na nga jëkk euh, dafa musa nii la musa mel mais yaakaar naa ñi nga xamante ne ñoo dëkkoon depuis des années et des années avant kanal bi xamoon na ne euh, fu ñuy defee kanal bi dafa amoon doobaale est-ce que yow fekkee nga boobu noonu bayal bu ngande la woon mais bu sono taa du mel nii foofu la ndox yi doon nekk mais bi ñuy defaree kanaal bi rek bu ko defee kër yi moom instant bi nii ndox dootul am fu muy jëm directement si kër yi leen parce que kër yëpp dañoo branché si canal bi bu toogee fraction de seconde rek pompé wuñu ko rek retour bi lay def gis nga kër kër gi nii retour boobu noonu mooy moo tax suñu kër yi di fees voilà. et en plus aussi xam nañu ne euh, Grand Yoff dafa yàgg yàggaay boobu noonu tax na miir yi yëpp dañoo màgget miir yi dañoo naan naan naan naan ndox ba nga xamante ne instant bi euh, ndox bu ndaw rek xam nga miir bi dootul dootul mun a téyeti ndox boo xoolee kër yëpp ñii bu ñu mabulee boo xoolee euh, miir yi si boppam ñooy xeli ndox. yow lan la leen yàqal si. waaw li ñu yàqal mooy déjà waañ bi voilà bagage yëpp jaxasu nañu suñu lal yëpp dañoo tooy donc euh, mooy loolu ah, lii mooy trois fois lii mooy trois fois lii fi am beneen bi fekk ma fi. bon pour man sama ñàkk teew la deuxième bi kazalika mu gën a fees bii tamit en tout gën a garaaw. ban message nga am pour lancer ko. waaw li message bi may wax nag mooy euh, man du ma ingénieur mais ci li ma li ma jot a dëgg sama benn rag bu tudd euh, alin Fall moom maçon la dafa am euh, collectif bu ñoon fii Euh, rencontré ñu. lii métti na métti na torop métti na torop torop torop torop euh, rawatina si goxu goxu Grand Yoff xoolal lii kër gi noonu kër gi noonu gis nga ñee ñoo ngi pomp ba léegi. suba ba léegi taw bi si suba la gënoon a metti waaye ba léegi ndox maa ngi des seen li nga xam ne mooy biir kër yi ñoo ngi pomp ba ba léegi. voilà ñun bu tawee duñu dugg suñu kër dañuy toog ci angle yi toog di xaar pour fu danger am ñu jug dem gis ngeen ma man nu ma toogee donc ñun lu ñuy wax tamit moom mooy waa Grand Yoff leen. yeew bi moom mooy waxuma leen pour ngeen far fii wala ngeen far fii mais chaque chaque année bu dara amee local ngeen jël ko jox ko ne da ngeen di xeex gouvernement jamono Senghor ba léegi mais quand ngeen di wóolu gouvernement kenn ku nekk parti au pouvoir lii dama leen di yee pour suba ëllëg bu kenn ñëwee di soxla seen mairie ngeen mos tuuti gouvernement ngeen am ne am na des réalisations yi nga ne nekkul Issa moo ko mën a réaliser nekkul keneen ne ko moo ñoo ko mën a réaliser ñi nga xam ne ñoo nekk au sein du gouvernement ñoo ko mën a réaliser ana Mimi Touré ñëwoon fi ana ñeneen ak ñeneen ñëwoon nañ fi chaque fois dañuy ñëw di euh, maanaam dàq suñu ay chance nañu yeewu yeete man nag dama naan tôt ou tard dinaa bokk dans la ñu naa soxla mairie Grand Yoff te kon boobaa je saisis cette occasion te yeneen téléthème bu ñëwee je vais saisir cette occasion pour wax ne leen que man bëgg Grand Yoff moo tax may yóotu dara ci Grand Yoff bëgg Grand Yoff moo tax ma dugg ci politique bu may dugg ci politique ñaar laa dem def sama bàmmeel laa dem mooy bàmmeel moom mooy fi nga xam ne ñu jur sa ay waajur ñoo fa tëdd ne ma mën a dugg ci lii te nekkul li nga ne moom mooy dëgg yàlla na ma ko yàlla teel a woon donc grand dama ko bëgg sama biir xol bëgg naa nag bokk ci ñi nga ne comme ñoom Pape Seck ñoom ñi ñëpp ay emblème lañ biir grand mais ndaanaanu grand yoo fii ñoom gars yi des nañ leen jox cër des nañ comprendre ñoom fu ñu bugg jëmee grand parce que da ngay gis fii grand dañuy suul ndaanaan kon grand yeewu leen muy man muy Pape Seck muy keneen keneen bu ñu soxlee grand jox leen parce que ñoom wane nañ seen ay preuve wane nañ lu tax ñu ne ñii war nañ leen doyloo bu leen xool ne kii alal la yor mais xool leen cofeel bu mu am ci biir Grand Yoff loolu daal laa xam ne maa nga parce que lii mënuñu ko ne di ko dund y a solution war nañ mën a am ay rigole yi nga xam ne man j'ai fait pas mal de pays en Europe mais day taw lu taw taw taw bëri après évacuation day dem mais nañu utal des rigoles yoo xam nag bu deewee sax dafay jàll dem géej c'est ça qu'on a besoin di ay ay investissement ak des travaux yi nga xam te ne ça va durer vers l'éternité mais pas ay mu daw benn deux ans trois ans et après ñu nekkaat ci même couchement non no non s'il vous ñu ngi tàllal ki nga xam te ne moom mooy bopp réew mi ku nekk ci euh, bopp réew muy son excellence de président Macky Sall njabootu grand bañ ñu la yaw la ñu bëgg nga wan ñu lu tax ñun ñu doyloo la ñu wóolu la loolu lañu soxla ci yow tàllal nañ la loxo pour nga utal ñu solution ci biir ndox bi waaw ah. bu njëkk da nga daan xoos ngay am arbis mais léegi maîtriser nañ ko dañuy yenn ci ndox bi peut-être mën naa duñu ñu def dara mais nag ndimbalu suñu borom la daal mais ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi ñu teg li ko yàlla teggi parce que su ma xoolee tey maire Grand Yoff lu nekk lay def ah, day ñëw ndox bi affaire affaire amee mu ñëw indi moto pompe dugg ci ndox bi ànd ak ay conseil am ay ñoom bas ñeneen ak ñeneen sonn nañ trop mais peut-être yàlla moo dogale noonu mais ñu ngi leen wax ni lii yàlla moo ñu ko teg yàlla ñu ko yàlla teggi daal waaw mooy li ma wax rek mooy état bi na ci gën a góorgóorlu rek na fexe def li nga xamante ne bu ndox ñëwee rek day évacué wu dem maire mënuñ ci dara munuma ci dara journaliste mënuñ ci dara kenn mu ci état dong mi nga xamante ne mooy yor pouvoir bi ñoom ñi nga xamante ne xëy na bu ñoo yor moyens yi nga xamante ne war nañu mën a investir ci quartier yi mu baax ñu ngi leen ñaan yàlla ñu tàllali leen loxo ñu defal Grand Yoff nag Grand Yoff Sénégal la Grand Yoff àdduna la Macky Sall mooy président bi mooy président mais su ma wax des fois dama naan est-ce que Macky Sall xawul mere waa Grand Yoff ci yenn parce que fii daal amul dara Grand Yoff fa ngi nii amul dara état bi jéemul dara amul dara amul dara bu dee daf ñuy mere tamit nañu jéggal rek. collectif boobu noonu xool ndox bi nal ak naka la man bokkoon naa ñi nga xamante ne euh, mosoon naa fekk Grand Médine mooy branchement Grand Médine gars yi ne non encore terre bi ñëw. branchement boobu du ñëw gis nga ñun ñëpp dañoo ko dañoo dañoo ne non dañuy dem pour dindi branchement boobu noonu mais kooku noonu xale boo bi mu waxee mu ne bu leen sonal seen bopp ndox il faut ñu drainer ko bi am fa nga xam ne falee lay jaar. canal bi nii lañuy ñuy jéem a xoolaat encore épaisseur bi maanaam yaatuwaay bi ñu dindi li fi ne ñu def ko en beton mooy canal boo xamante ne ñaari nit sax xañ nañ si di dem yaatuwaay bi. donc bi ma toogee xalaat lay xam ne xale bi lu mu wax ni moom Aline Aline franchement ma xam ne waxu nit la wax donc yaakaar naa mooy solution mu ne maire Grand na xool loolu noonu ak ONAS euh, bi nga xamante ne ndox bi nga xam ne mooy mooy évacuer ndox mi maanaam continue bi moo moo moo ndaw ko waaw bon solidarité mi ngi fi ah, parce que depuis tout petit bu kër sama kër bu feesulee dañuy dem kër bi jàkkaarloo ni jàppal leen xam nga Grand daal moo bindee noonu quoi mais dëkk si dëkk defar a gën et souvent damay dégg doomi Grand man mii sax awma titre foncier mais li may bakku mooy dama dama jënd seen titre foncier donc booy grand yi il faut ñu bàyyi xel loolu noonu man bokk naa ñoo xamante ne dama teg teel samay bakkan contre les agressions ñëpp xam nañu ma fii ji dade mais grand wax ji moo fa bëri mais jëf ji ñi koy def da ngay compter donc waa grand idée boobu noonu bàyyi leen ko ay titre foncier titre fonse dañoo jaay seen titre foncier ñu ñu dëkk si geneen bëgg juddoo fii man si mbanni bi rasu laa dëkk te moom laay tiitaru te fii dama xam ne man sama alal fii la nekk mooy kër gi sama nijaay ko moom samay doom yëpp fi leen juddoo donc tey xale baa ngi nii lan la ma doon wax lu tax nga jógee suñu kër ñëw fii nii te suñu kër moo gën loolu xaw naa jooy moo tax nit booy ànd ak ak nit na ngeen wax ànd ak lu rafet surtout xale bu ndax boo xam ne xamul nan ak naka la mu posé ma question parce que ni ma dundaak moom la moo tax. waa gannaaw jeunes yi nañu bàyyi si loolu noonu quoi spécial safar ñun ak yéen ci bii promédia bi équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bis bi njëkk ci weeru safar ba bu keroogee di safar fële ci Touba. yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba. wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi promédia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say ak xew-xew yi nga xamante ne que moom la ñu dund ci bisu màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu xewle ñu jox le équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di bi Bprod Média kon màggul 2022 ak Bprod Média ñun ak yéen incha allah.